su ngeen gisee jotaay bi noo ngi siyaar bu baax Serigne Mountakha moom Serigne Bassirou mi Serigne Touba di siyaar bu baax mbooleem yoonu murit wépp jullit yi bàyyiwunu kenn tey nag ñoo ngi fii di def plateau boo xam ne bu ñu gisee jotaay bi xam ni bisu julli géej gi moo jot muy le 21 septembre loola nag doo ko gis ci ay xasida waaye Serigne Touba ko nettalil boppam fi nga xamante ne mooy ndaam keroog ba muy jox sëñ daam Abdourahman loolu ne mu ne ko rafaate naa la ko ba dindi mbubb bu jox ko ko la ko ni keroog bi may julli ci géej gi kat mbub mi laa sol mbubb mi laa sol mag ñi daal di tiit ne ko mbàkke da ngaa julli ci géej gi mun leen waaw julli naa ci géej gi sëriñ Moussa nag yaxal na ko nit ñi dégg ko kon moo tax ñu leen di ubbil xam naa bu nu ubbee rek jox bàyyi Ibra Cuun Maajoor mu joxal nu kàddu yi ki xam ne mooy sëñ Mamadou Ndiaye sëriñ Cissé Mouride mi ngi nii toog waaye moom ku ne xam na ni kàddoom day dugg ci kàddu yi sëñ Demba Ndour dal ñëw ne ci vice président muy sëriñ xuma di jàmbaar joo xam ne ku ne gis na ko guddi ak bëccëg sëñ Babacar bu laaj ci lu muy dox liggéeyal sëriñ Touba ñu ñëw nag ci ki nga xam ne nag après sëriñ Mountakha moo nu ko joxoñ muy jàmbaar joo xam ni sëriñ Saalihu Mbàkke moo nu ko njëkk a joxoñ jox ko fédération wakkaana xaqan alay naa nasrul muminin mu koy doxal di ko doxal ba mu xam ni liggéeyal na sëriñ tubaa ne dann sëñ Muntaxa sëñ Muntaxa xool dal di laaj mu yi ne leen kan ngeen yaakaar fekk xool yépp dal di juboo ci cey bu jiitaloon Seex Maxtaar Diouf mi nga xamante ne jàmbaari sëriñ tubaa la loolu la sëriñ Muntaxa def daal di koy teg fi kanamu julli géej gi mu ànd ak soxna Sawdu Xuma di jàmbaar joo xam ni du ne woon bu ne du ne neewul bu ma bu ma doon góor yooyu yëpp waxu ko ku ci jàpp di nga xam ne di nga barkeel ndax sëriñ musaa Ka moo ni keroog la gaal gay daw ba wàllu tisbaar muy jàpp am madam bu sew daal fay jaar dikk taxaw fi kanamam daal di koy laal bamba fabaat njàpp ma daal di am àll ba muy masaa madam ba dil laal ko waaye tuuti kon mu tàkk far baal ko gars yi badar yi ñoo ko lal ca ndox ma lal ko ca mbeex ma demul ca bël ba Cheikh Bamba daal di jàpp julli tisbaar gars yi badar ya def maamoom li doy ko waar keroog la mës a feeñal xar baax lu baax lu baax ba weesu baax bamba baax moo nu ko doon xibaar duñ ko duural ku yebbu gëm ku weddi buural bàyyi bi cuun démb lañ jóge ndar tey ñuy def plateau bi waaye ku ne xam ne ndar ña fa toogoon la mu tee gouverneur président Kerchan Jules commissaire des colonies chef du service administratif Boyer lieutenant-colonel supérieur des troupes Jourquet directeur de l'intérieur par intérim Sénapolique procureur général Kalarak, médecin principal chef du service de santé, Ogar, lieutenant de vaisseau, délégué du commissaire de la marine, Bassiat, conseil privé tutelaire, Leben, conseil privé suppléant, ñooñu ku leen yeewoon tey ci bàmmeel ne leen kaay leen xool doomi président tey lan jël kuréelu julli géej gi li ngeen bëggoon mu fay ñu ne ko jiitul yow sax yaay jiitu léegi préfet toog ministre yi toog président jël ay instruction ci loolu kon yaakaar naa ni sëñ Tuubaa gañe na guerre bi bàyyi Ibnu Cuun doog a dugal nit dem ba toll fii nu toll tey xam ni àddina bépp dañuy waajal bis bi ñu jóge fu ne bitim réew gis nga fan yi yaa ngi gis plateau yeeg invité journal yi mhm. euh, euh, président Cheikh Makhtar Diouf wa Kana xam jiite ko ànd ak ajorul sa du xuma ak équipe bii mu ànd la xam ni équipe de choc la mhm. ndax dafa am loo événement boo xam ni ñi ko dirigé ngay xool bul xool euh, mbooloo mi seetal ñi ko dirigé ba xam ni yàlla qualité bi ci seexul xadim def ndax mooy tànn ay nitam ñeen mhm. kaay leen indil ma defaral ma lii liggéey loolu nga liggéey te nag ñu ngi dëgmal bis bu rëy boobu xam ne àddina bépp ñu ngi koy nit ndax nee naa la ñaari jàkka la sëñ Tuubaa julli yoo xam ne kenn julliwu ko jàkkay géej gi ak biro ndar ba léegi kenn jullootu bu la génn fay barkeeloo donc loolu ma ta bàyyi xel àddina bi nag xam na ni bis bi ni mu toll léegi ak ndigal li sëriñ Muntaxa Mbàkke joxe moo tax ko koy man na ko fekkee ndax da cee yebal taalibeem rakkam muy sëñ Fallu mu sëñ Abdu Xaadar nga mooy éliman ci fii nag ñëpp jaar na fi Cheikh Moutala jaar na fi sëñ Mountakha jaar na fi ba tey sëñ Fallou koy jiite kon bis bu ñëwee ñu fekki ko talaat ko war nañoo santat yàlla tudd nga léegi Cheikh Makhtar Diouf mi nga xam ne mooy jëwriñ ji tabarkalla ak équipe bi mu àndal nga xam ni yéene jim ci def ak lim ci wax ñëpp gis nañ ko saa su ne waaye euh, mënunoo ñàkk euh, bala ñoo joxe parole yi su nattangoo defee ne muy Serigne Djili Niang te it moom noo daan baaxoo di def fii plateau bi tabarkàlla euh, muy koo xam ne moom taalibe la te di di kenn ci yoon wi moom lañ jox avant ñuy tàmbali joxe euh, parole yi mbaa ñuy séddoo ci plateau bi waa man hujjar bi baha bi taqaru bi loolu la sëñ Tuubaa wax sëñ Maam Moos mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ngi santaat bu baax bi ñu yàlla defalee feex ñu fekkewaat waajtaayu màggal gii di ñaan yegg ca ci jàmm ba wees ko ci jàmm àndandoo ko ak sëñ Muntaxa màggal kay ati at moom mi nga xam ni moom la waajuram Cheikh Mouhamadou Mourtada doyloo woon ci ndigalu sëriñ Saaliw muy ñëw di jiite si liggéey bi di fi yebal ay rakkam ba tey jii Cheikh Mohamad Fadal moom Cheikh Abdoul Khadir di ñëw di ko jiite si lépp ci ndigalu sëriñ Muntaxa mi nga xam ne tey jii mooy sëñ sëñ Muntaxa moom itam moo yàgg ànd ak kuréel gi dem ba e, at yii weesu mu tànnal nu Cheikh Makhtar juuf mii nga xam ni joxoñu Serigne saaliw la woon ndax Serigne Saliou moo ko woowal boppam jox ko ndigalu kuréel tudde ko wakaana haqqan alayna nasrul muminin kon moom sëñ Saliou moo ko jëkk tànnal boppam du ma wax digganteem ak sëñ Abdoul Ahad du wax digganteem ak Cheikh Mamadou Murtada mhm. waaye tànnuk sëñ Saliou rek doy na sëkk loolu nag moom la Serigne Mountakha di sooxat moom la sooxat ba mu yegsi fii mu yegsi tey jii kon ñu ngi ñaan moom it sunu borom yokk ko te musal ko jàppale ko ci liggéey bi mu ànd kaak nag ay jàmbaar ni ko sëñ Ibra ak sëñ Mamour waxee léegi bu ñu tuddee soxna Soodu Xuma rek doy na sëkk waaye nag naka jekk sëñ Touba moom jigéen ñi duñ ni mukk buñ doon góor te soxna si dafa am wala kuréel gi sax dañu am ndat nday ndey gu mat ndey muy soxna may mu Maymunatu bintu Cheikhul Khadim moom moom moo jëloon kuréel gi doon ndayu kuréel gi doon lépp kuréel gi ba nataal bii nga xam ne sax moom lañuy siiwalee julli géej gi saa su nekk wàccaayu màggal gi soxna may ci boppam moo ko tànnaloon boppam kon loolu di gëneen taw feex la mu def ndar gëm rek la ko defee woon de gëm ak dogu ci ak fulla ji nga xam ni lépp loo xam ni da koy def saa su waxtoom jotee fu mu ko fekk dana ko def yoor yoor naka jekk da koy def di ci roy sallallahu alayhi wa sallam naafila yoor yooram fekk bureau bu ki ñu daan wax borom ndar mu xam ni heure bii daf ci daan def naafila te ñii kat seen bureau bi taaru na taaru goo xam ni dara jë bu dul woon waxtu yoor yoor sax moom moom fu mu mës a gis mu taaru rek la mu fay jëkk xalaat mooy julli fa ñaar laa ko sant sunu borom julli ji loolu rek la fa def ñeey nag gisee ko sax moom na naneen ba tey jii mu yegg si ñu ne benn waxtu jotut déedéet yor loor la doon julli du julli farata déedéet du julli farata yor yoor gi nga xam ni da koo saxal saa su nekk moom la def ci bureau borom Ndar waaye boobu loolu lan lan lan lañ ciy jànge mooy sëñ bi ngëm gi nekk ci moom fit bi nekk ci moom jom ji nekk ci moom ak dogu ji nekk ci moom sunu borom li nga xam ni moom la diggeek moom xam nga yàlla dafa ni bindunu nit ak jinne lu dul ngir ñu jaamu ko waaye nag nit ñi ñi ngi rawante ñi ngi rawante ci nawaafil yi ah ndeysaan sëriñ Jili Ñang fàttali nga nu rek tuuti ci historique gu euh, julli 21 septembre tabarkàlla nga xam ne Cheikhul Khadim kenn du moom du kenn sëñ Muntaxa daf na waxoon ni keroog bi sëñ Tuubaa di dem ci géej gi nee na suufu Ndakaaru da doon jooy waaye tey suufu Ndakaaru mi ngi ree ku na ne Demba Ndour kenn la ci ñoom Demba Ndour euh, sur le plan d' organisation ma jox la it nga wax ci wàllu euh, maanaam couverture médical boobu ak fàttali it nag mooy trésorier kuréel bi sëñ Demba. ah sëñ Jili noo ngi lay sant wax ji rafet na lool da ngaa wax ni kuréelu promotion ren waaye dama lay wax fi promotion bi jógee. ginnaaw bu nu santee mbokki jullit yi mbokki taalibe yi siyaar leen dañ leen di xamal ni ren jii kat sunu jëwriñ noon di jëwriñu kuréel gi nga xam ne sëñ Saliou moom la tegan faman kuréel gi teg ko ci loxoom muy Cheikh Mountakha moom sëñ Basirou nu ànd moom ñaar fukki at ak ñett yi nu ànd tey jii mooy sëriñ Touba ci moom lan daan jaar mu fab sunu délégation ñaanal nu ba nuppitu yendoonu jox na añ no añ ba rek moo woote ki ci sëñ Saliou ne ko gaañaa ngi ñëw rey ren ji nag mooy sëñ Touba mooy mooy jëriñu kuréel gi ndax moom lañ ko tegoon ci loxom mu doon toog tey ren ji di at mi mu njëkk a toog di sëñ Touba di jëriñu kuréel gi kon promotion bi foofu la tàmbalee sëñ ji li ah li ñuy màggal nag lu mu doon <clears throat> lu yomb xam la ji li wax nga ko ah ñi fi jaar jot nañoo wax loolu waaye li tax nun nuy màggal màggal gi ginnaaw loolu yëpp ngeen wax muy jaar gi mu jaar ndakaaru julli gi mu julli ci géej gi julli mu julli ci géej gi nga xam ne ni ngeen ko waxe ba nu ko jëkkee màggal te eh, wax ko sëñ Saliou Mbacke la mu ca wax wax jëm ca wax rek ndax moom daf ni bu sëñ bi julli woon ci géej gi ba pare jaaree fa dem ba mu da lalee dalam ba ku lal sab der taxaw ca julli def ca nañuy def ca arafat boole fa tisbaar ak takku ku ko man mënat nga fa jaari ñibbi waaye nee na bu demoon ñibbi dañu naan daa daw mbaa li muy def mënu ko nee na dellu googu mu dellu ca gaal ga sëñ bi lemaatub deram dellu ca gaal ga rek moo ma tax màggal loolu sëñ Saliou wax mhm. ah ñu di ko màggal nag noonu yëkkati julli ga ndax ba fi sëñ bi jaaragul ak léegi danga ko déggul fenn fu ko nit defe ci mbooloo te te mucc ca tubaab yi jaar nañu fi naar yi jaar nañu fi te xam nañu bu doon ab tubaab a ko def mbaa am naar ko def sunu doom yaa ngi koy jàng tey ndax noo ngi jàng Martin Luther King noo ngi jàng leneen noo ngi jàng bi sax ak leneen leneen lu sax duñ jàng sëñ tuba ñu ne ko yëkkati ndax nun ñii di nit ku ñuul muy sunu ndam di ndamu jullit yi di ndamu africain noo war a yëkkati jëf jii nga xam ne nit nit ku ñuuloo ko def jëf ji nga xam ne ab jullit ko def te mi ngi ko defee fii ci Sénégal kon nun noo ko war a yëkkati ba àddina xam ne am na nu ko day ko toll nii koo xam ne kii bu ñu yëkkatee Martin Luther King mu suufee bu ñu yëkkatee Gandhi mu suufee parce que non violence su Gandhi ga avant mu koy def sëñ Tuubaa def na ko ba noppi kon looloo tax nuy màggal noonu yëkkati ba ñëpp xam ni lii sëñ bee ko defan te kii ko defan nit ku ñuul la te la dëkk te loolu mooy sunu war a gar ñun a ah, ñu di ko def nag ànd koog sunu sang boobu di sunu soppe di sunu baay di sunu xarit di seex Cheikh Mountakha mënuñu ko fay ndax peccum liir bu neexee nday jaatee ca ca mbëkk ya ba noo ànd ak moom ba dëgg ni dégguñu eh mësunoo dellu gannaaw kanam rek la ñuy jëm jàmbaar ji ne jaar na fi nag ba ci sunu waa ji toog ñu di ko wax si sa murit borom pësteef borom borom borom njariñ loo xam ne kenn mënu la ko wax dafa nañu ci Cissé la ñuy yem kuréel gi yem fa waaye sunu borom ak i dogalam mag ñi fi jaaroon kenn ku ci nekk <clears throat> ak mag dab la wala tële ba ci moom mii ak tële dab ko sunu borom mi nga xam ne dara tëwu ko nag ndax sëñ Tuubaa moom amul tànk ginnaaw tànk kanam rek la am te it lu nee ngi ci biiram te it sëñ Muntaxa mi nu jiite it du nu seetaan mosuloo seetaan. mu tànnal nu waa joo xam ne nii jàmbaar joo xam ne ji ba mu ko tànnee ba teg ko si loxo ba nëgë ni mel na nu yëgatul dara du fakk jëf nag moo ko fi jëf wax ko noo ngi koy sant moom sëñ Matar mii di sant jàmbaar yi fi jiitu woon noo leen di sant leen gërëm waaye di leen xam ne ne tiit daal mbaa jàq defatuñ ko ndax saa yi nu lambee dara yëkkati ko mu jafe bu nu nee nangam lañ koy xaymaa poosam lay jëkk a lamb def ci nu door a ñëw nun kuréel gi di dinañu jiitoo ñaari longueur ci jëf kon boo amee kilifa gu mel noonu nga ànd ak moom kat bu mel noonu di taalibe te di ko def rek rek rek rek ngir sëñ Tuubaa dafa naan loolu day daal di neex waaw doxin day daal di neex lool kon looloo tax promotion moom mënunoo ñàkk ni moom sëñ jili am nañu promotion am nañu ko ci noonu nga ko waxee ndax taseeg tam xarit gi waaye jëkk nañoo promotion ci sunu sang sunu soppe sunu xarit di sunu njiit di sunu sëriñ di Cheikh Mountakha Bassirou toog ba naan nag moom muy sëñ Touba tey waaw